ma kontaan nag lool ci kàddu yi ma fi dégg ndax ah. ay jigéen yu jàmbaar ñoo wax ay jigéen yoo xam ne dañuy liggéey li ngeen wax ci toog ba xaaja guddi jug bu ndox amulee ngeen dem root loolu ku gëm li ñuy def rek moo ko def loolu bettuñu ci Kédougou wóolu mante du jukkin loolu la de ndax ñu jàmbaar rek ka fi ne. parce que pompe bi ngeen wax nag wax naa fi mu fi léegi directeur ngi ne dinañ ko. Ah. leneen li mooy groupement yi nekk fii di liggéey aussi bu ci kanamee dinaa jox gouverneur bon yu mel ni li subvention yoo xam ne président Macky moo ko jox mboolem groupement bu yëngu. kon intrant yi ñu doon wax. et en tout cas engrais. engrais yi ñu doon wax ak yeneen i mbir. ani bu groupement yëpp dajale ak leneen lu état di def.

biñ leen ko alloué aussi euh, MEC Dynamics moom ñëw na def na procédure administrative yi waroon yëpp def na ciblage bénéficiaire am loolu lépp nag biñ ko identifié ñoom ba pare

jënd ñoo koo koo dem ci dëkk bi nga laajte am na njur loolu lépp ngir dynamique la ñun daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm